ba fi wax nag waxu waa kër Balla Gaye non jamais man bu may analyser ah, objectivement ah. laay analyser ah. man Balla Gaye sax bu may analyser combat man objectivement laay analyser mais de toute façon la ma yaakaaroon dëgg dëgg dëgg dëgg pour diir rek sans pour autant parce que man damay wax faraluma woon kenn loo Lo daanoon ak Siteu daanoon laa si yemale mais peut-être na ma woon ne waaye boo señoon na ma yaakaaree woon ne eh, boo señoon non boo bu ma bu ma waxee dañuy yaxane ne peut-être far mais. <laughs> dama yaakaaree woon ne ah, Modou noonu lay ñëwee jàppee sita fooyee ko yaa wax dëgg yàlla loolu laa gis. nañ nañu waxtaanee nag objectif. de mhm. c'est man Balla Gaye mooy sama mbar mais encore une fois Ahmed mënuñu ne làmb la boo xam ne Modou Lo dans les waru woon jël Siteu. Mhm. si làmb ji. Mhm. bu nekkee nag Siteu moo ne moo bëgg mootloo ne day dagg bopp bi. ba mu jaral la nga dem ba janvier ñëw. Mhm. Modou Lo li muy prouvé si làmb prouvé na ko ba pare il est le roi des arènes. Mhm. dans les normes. Mhm. Modou buy bëri Siteu amul si lenn lu mu si soxla lenn la si soxla mooy conserver titre lan la Modou Lo war a euh, prouver face Siteu non non. au contraire Siteu moo war a man dama naan Modou démb jël na ay décision yoo xam ne man bu ma yoroon couronne bi di bëri du ma ko def. si Siteu moo waroon attaqué dans les normes. kan moo soxla Siteu moo soxla. Mhm. Modou Lo soxlaatul. Mhm. nag mënoo yow tey say morom ñu bëri nekk fi. Mhm. yow Siteu ñu may na ca sens. sens boobee làmb bi de début à la fin li ma seetaan mooy gisuma fenn foo xam ne sita moo déroulé. naa Modou Lo sama mbër sur la défensive. si défensif la ne. Mhm. au fur à mesure Modou bëggoon fekk si Siteu. Mhm. comme la mu tàmbale ay supporters am bu yàgguloon mooy genre carte à appui wala yooyu de si jóge Siteu moo waroon jël ay responsabilité moo waroon fekk si Modou moo waroon seet si li nga xam ne moo di couronne bi. Mhm. dégg naa nag ñu bëri ne Siteu jàmbaar la am na am na loo am loo amul Modou Euh, am na am na li mu am si Modou lu kenn amul. jafe seet seet da koy jàpp ne boo xoolee Modou fi mu jaar. Mhm. par rapport ak Eumeu Sène Bombardier keneen ak keneen ak keneen da ngay jàpp ne. Mhm. si défensif bi mu nekkoon am na lu mu ca gañe mooy au moins mhm. euh, yóbbu na Modou Lo ardo mais niñ koy waxee ne làmb nag. daan la daan. ak li nga xam ne moo di décision wu arbitre. mais mais gi defoo si benn jàngat itam par rapport ak boo seetloo euh, tous les combats de Modou Lo seetloo na à chaque fois bu tasee grand gabari yi maanaam euh, les adversaires élancés dafay xaw am tuuti problème. daa fekk ñu roofoo ñu de saa nag kaay ma wax la leen de wax jee fi nekk di bëri rek <laughs> fii ku dul Balla Gaye ku ne encore une fois du sama mbër. waaye boo jëflanteeg moom nga xam ne. non loolu ñëpp nangul nañ ko ko. mais mais si te dem lan la waroon bëre mooy damay taxaw. maa ko sut ñëpp nangul nañ ko ko. jam ko laay def dox dem ak moom gauche droite dóor. Mhm. lenn daal laa xam ne boo jëlee tànkam doo ko daanit mhm. mbaru tànk moo tax boo xoolee Siteu si làmb ji amul fenn foo xam ne nangu na li nga xam ne moo di maanaam làmb ji maanaam mu doon. li nga xam ne maanaam roofoo. Mhm. jam la doon def ci défensif la ne lenn leen nag mooy la de Guiers rek la ñu yëpp ci làmb ji waaye nag wax dëgg yàlla boo waxee rek te dëgg tax te am na lu kenn amul ci Modou mais yaakaaroon naa ne ni Ama Baldé def noonu lay def mënoo kii am ba pare yow ngay wuti ji nga bëgg a nekk ci défensif encore une fois man jàpp naa ne Modou Lo même risque yi mu jël leneen mënoon na ko ci fekk et que même risque yi mu jël noonu moo tax euh, euh, moo tax mu lii moo tax moo tax mu dem ca àddu ma jàpp naa ne amatul lu muy cherché si làmb effectivement ki bëgg moo koy fekk si mhm. neex a faral nag fii la ma neexee du ko may mu nooy fu mu mënti fekk da koy fekk si balaa ngay comprendre ñaare am moom mu làmbam doon naan maanaam lu mu mujjee lan la arbitre wax déedéet da nga naan ku daan dalay daan wala nga daan ko léegi nag bon à si loolu mhm. Euh, dafa am leneen loo xam ne seetlu mhm. naa ko mhm. ji nga amet et il est temps ñu wax si les violences euh, Karo mhm. euh, li ngay li ma la gis nga bind nii point boobu laa doon dem et dama koo gis ji nga amet il est temps par rapport ak si làmb ji ñu xool wàllu violence bi man bi may xëy ci fajar gi di ñëw suñu arrêt ba nga xam ne moom ku may ñëw dama naan la arrêt bi moytu ko benn waaye moo fa tojal mbaxare benn benn taximan ba jël kóolam ba jël kóolam. teel na di toj mbaar ma kay. foofu altine fajar gi ah, teew foofu rey nañ fa nit. waaw waaw loolu moom c'est vrai. foofu rey nañ fa nit. fi may fi may fi may jëlee oto jo rey nañ fa nit et ñëpp xam nañ ne même la gendarmerie moo ma gën a xam maa ngi nuyu Mazor. ba fa nekkoon jamono gi moo ngi kolobaan moom damay seetaan lu bëree bëri parfois dama joxe ay conseils yu am solo. ñëpp xam nañ ne foofu insécurité dafa am. Mhm. et chaque jour boo fa demee fa la ñu fréquenté. Mhm. et jusqu'à maintenant la gendarmerie dafay dem di def checkpoint mais la fa doon am moom fay am ba tey. Mhm. booy bi bi mu toj baare bi tey maa jàkkaarloog moom fekk jël na kóolu waa ji taxi bi mu dawee ma xam kenn la mooy sama heureusement sama benn koñ bi benn booy mbër buy génn si laa ko signalé mun dew nangu nanguju koolu booy bi. maanaam man moment boobee maa ngi ordinateur ak ñaari téléphone mais man xam nañ ne. man ak ñoo ma dëkk ci koñ ba nga dëkk. ndax man boo demee andil dama lay jox ba pare toog aj sama kër toog la seetaan heure boo paree ma ne la kaay ndax xamante nañ mais yàgg naa dénoncé mais dénoncé boobu est-ce que waa koñ bi ànd nañu ak yow pour violence boobu wala ñii nekk ci koñ bi di def naka lu noonu mu jeex. Mm-hmm. et loolu ngay seetlu par rapport ak si violence bi nga xam ne moo am ci làmb ji man li ma mënul comprendre démb. am ku ma war a andi bagage xam nga ko muy moor effectivement ban heure la andi matériel bi parce que parcelle la doon jóge mhm. kañ ngay ñëw lu mu la wax mooy xaaral ba Modou dem ba pare maanaam tant que Modou génnagul foofu parcelle boo génnee yor matériel mën nañ la sa nangu ko li ñuy wax simool malgré dispositif bi nga xam ne euh, le ministre de l'intérieur teg na ko taxul ne démb Euh, simol nañ lu bëri def nañ ko beneen bi mooy am na benn bus su berte boo xam ne euh, envoyé naa la ko image euh, kii Mariam mm-hmm. Mariama benn bus boo xam ne moom la ñu toj mais tey man mm-hmm. damay demander mm-hmm. làmb lan la ci Sénégal di gagné lan moo tax bu làmb amee ñu def gox yu bëri zone rouge et pourquoi ñi nga xam ne ñoo nekk ci làmb ji ñoom ñooñu euh, gis moo ngi noonu moo ngi noonu benn euh, bus liberté bi la ñu mhm. toj ko mhm. lii nag ci lan la c'est pas patriotique ça non non weesu wàllum patriotique bu weesoo loolu ñoom ñoo cee dem ca banlieue ba mhm. tey fii moom li ngay li ngay jàpp mooy làmb ji man duma ma la nëbb man je préfère làmb ji la muy jur ci jéeye moo ëpp la muy jur sa koom-koom ndaxte mënuñu ne waa jàmm gën bu leen génn waa pikin bu leen génn waa Géejawaay bu leen génn. Mhm. ñu ne lay waa parcelle bul génn waa Cambérène bul génn ndaxte kii moo ngi jóge ca benn banlieue ba di ñëw kii jaaree ca beneen wet ba. Mhm. mu nekk loo xam ne violence boo xam ne kenn xamul nan nga koy nattee et que violence boo xam ne waa Pikine tëddatuñu nelawtuñu rawatina ñi nga xam ne ñoo teg nekk technopole malgré sécurité bi nga xam ne moom la ñuy teg. maintenant lan mooy problème bi est-ce que làmb mën na continuer nii. Mhm. est-ce que làmb dañ koy bàyyi mu gën a guddee. est-ce que làmb jotul ñu wàññi li nga xam ne maanaam mu guddee mu ñàkk bañ a guddee wayam simon la ñu def. démb ak 15 heures déjà ñu ngi. à euh, simon la mbooloo la lu ñu romb day dem. boo yoree sa moto dañuy dóor nangu ko magasin bu tijji dinañ jël. ndaxte majeure partie bi ñu ñëw liste du ñu boo yëppee moo dañuy génn weesooti nañ di ko sexu sex maanaam di ko xencu booy léegi dañuy sex dañ koy sex gens booboo bi moo ngi nekk ci làmb ji moo ngi nekk ci gox bi mooy zone yu bari yoo xam ne dama naan la demal bërëb bu nangam ñoo ngi fay jaay gens ñoo ngi fay jaay gens booy bëri seen dënn yi baaxatul te ñëpp ñii di ñëw stade li si duñ man loolu laa mënul comprendre pourquoi mhm. ndax jotul si réew mii di Sénégal muy si nawetaan boo xeentoo majeure partie si violence yëpp ñoo koy def conscient wu mais nit ki nga xam ne dafa tux maanaam kala kóotam dafa tux yàmbaaw gaz mandi mhm. mais kooku ndax mën na ñëw stade dal ndax kooku mën na ñëw stade yem ak nit man li ma comprendre mooy la moo police boo ñëwee ñu peep la génnee koom bi nekk ci yow briquet bi ak maanaam euh, lépp loo xam ne yi mais dañuy xam ne kii li si dul ñu mm-hmm. bàyyi ko mu dugg mm-hmm. man jàpp naa ne Sénégal toll noo foo xam ne ci sport mm-hmm. maanaam nit bu ñëwee ci béréb rawatina fu mbooloo nekk kooku lu si dul ci boppam dañ ko faa war mën a jële ndaxte benn ci biir ci liberté bi moo gën a tuuti lañ def demaatal nga def reportage fépp fu làmb ji amee woon boo fa demee violence bi doo xam na lay demee moo tax man làmb ji léegi neexatuma mhm. làmb joo xam ne au contraire tey ñaar ñoo cay gañe ak promoteur ba askan wi gañe aussi mais loolu bu demee ba jur violence ñu seme téeréer seme téeréer boobu tey dem na ba ñu nekk Pikine maanaam ku dëkkee Technopole bu dimanche ak samedi jotatee sa xel doo maanaam du nelaw est-ce que jotul foofu aussi ñu wutal leen benn poste police wala dara ndaxte dans mhm. les normes da ko war a en temps normal bu dara amul. Mhm. foofu amul sécurité. ci zone bi mu nekkee. rawatina bu làmbaamee malgré dispositif bi ñu teg yëpp teg yëpp teg yëpp teg yëpp taxul ne sécurité maanaam sécurité bi tey la lii. Mhm. et lii nag sincèrement mënul continuer ndaxte askan wi dañoo war a dox seen soxla. mënuma d'accord ne làmb am parfois te li na ma yàlla baal yenn xeet bu ma gisee nit yi dama naan ñii ndax Sénégal la ñu dëkkee ndax boo demee ca làmb luñ lay wax ay toj sa mbaari bu naan tas ay yal min bi nag maanaam da nga naan ñii fan la ñu jugee da nga naan ndax réew mi doy caaxaan da nga naan réew mi ndax amaatul beneen société buy dund suñu biir réew langage bi jëfin ba solin ba doxin ba te amu ci kenn koo xam ne dinga wax ak moom mu taxaw normal koo ca waxal weñu ne la eet mu ngi làng nga gis sukk li ca gën a pire nag mooy ku jigéen ngay gis mu maanaam tànk yi mu mënatul taxaw mais parfois danga nga naan mais làmb lan làmb ji lan la apporter lu positif peut la ko taxoon a jóg dëgg dëgg dëgg instant bi dafa xaw a jàdd yoon. par rapport ak boo xoolee ancien yi. xale bu jigéen ngay gis mu ñëw ca làmb ja boo ko dékkalee micro bi damm na benn tànk bi weñu toog <laughs> damm na toog weñu yaram bi tent ba waxatuma ko nga wax mu ne la eh bi sël walla nàngam xam nga euh, dama damaa gis uh, dem januar ñu laaj benn xale. et l'éducation encore l'éducation xale bi doon wax séeréer di ñaanal cité mais séeréer la waxee xale bi wax na ba pare dal correct wax cité la faral waaye ñaanal ko yàlla mais bu nekkoon fii ba ñu saagawee fee ne la yow nangam booy nangam xam nga nàngam nangam au contraire man dama naan làmb ji au fur et à mesure est-ce que nekkul sax di xaw a yàq askan wi yow bis boo demee làmb wala ñeneen ñi bëri da naan Sénégal bi ndax amul yeneen Sénégal yu dund yu fi ne ndax da naan ndax amul beneen pays bu fi ne ci réew mii mais tey mënuñoo toog làmb am violence bi di gën a am si waxin ba ña leen di jox micro xàmmeetoo ci góor ba xàmmeetoo ci jigéen ba kàddu ya rafetul ba pare nag bëgg di agressé nit yi nit yi mënatuñu am jàmm mhm. man dama daf man dama jàpp ne war nañu xoolaat làmb ak la ci jëm ndax lii moom mënul continuer sincèrement ndaxte nag wax dëgg yàlla. Mhm. am na ñu bëgg làmb am na ñu bëgg football. Mhm. effectivement démb championnat amoon na championnat am na ba jeex. te déggoo kenn déggul dara mhm. mais lan moo tax làmb championnat dina am mais dégg si moom. sa bi nu mujjee démb. démb ñoo gagné génération foot deux démb la ñu am la ñu door am ndam temps yëpp dañoo sampoon la guerre la ñu andi. <laughs> yàgg ngeen si nag samp moom yàgg. mais nag. mais nag wax ji wax ci moom war nañu xoolaat làmb ji lan la. Hmm. lan moo hmm. fi ne. Hmm. làmb ji bu yàggee. yan genre xale lañuy am. ndaxte doy caaxaan man sax sama mbër ba mu am koñ ba buy génn nga xam ne tey mbër maay génn te li ma jaaxal mbër bi par force foog mu am gang booy di leen taal seeni ficelle. di leen tux di leen géer te ce qui booy li ñu jël ji nga buñ ko jëlee ba pare amet maanaam buñ ko jëlee ba pare. xàmmeetuñu guddi xàmmeetuñu bëccëg. amet booy lu ñu romb day dem. te foog ñu xool boo yee ngi lokk as <laughs> noppi sax boo ma waxee danga nga ne ma daaw de fan nga xamee lii te man li ma jaaxal man lay dem daa bëgg xam yàmbaa bi dañ koy bayee ci biir kër yi wala. maanaam amin bi moo yomb wala yorin ngee bëri. amin man mënumaa dox deux jours romb fekkuma yàmbaar bi fu ñu koy takkee wala muy xeeñ. xet bi de benn la moom. te booy léegi yàmbaa bi si mbedd bi lañ koy toxee. parce que. Euh, c'est ce qui est maanaam li gën a pire dañuy dem léegi ba buntu këru jàmbur la ñuy dem toog seen gang. di ko fa tux yow boroom kër gi ñeme woo wax ñeme génn parfois nga woo gendarmerie liggéey ba ca war dëgg-dëgg duñ ko def. Hmm, du am du am. man li may laajte mooy. man lañu yàmbaa bi la ñuy jàpp wal man man daal man daal bëgg naa comprendre ndaxte xam naa ne fi moo ngi ne fi gàññi ci réew mi bëri na fi lool en tout cas euh, boo bëggee defar sam réew moom faw nga am une jeunesse saine boo xamante ne euh, day saine ba noppi na consciente euh, boole si parce que bu nekkul dara rek loolee ëllëg mën na jural jafe-jafe génération bi nga xam te ne euh, moom la ñu euh, daal di euh, nekkal wala moom la ñu daal di nekk di ziar bu baax a baax su mbokk internautes yi ah Seynabou Dramé waaye itam sa yaay ji sànq ba léegi maa ngi koy gis ci commentaire yi suñu yaay ji taalibe Baye moom itam ñoo ngi koy ziar bu baax a baax. sama yaay bopp maa ngi koy nuyu.